bonjour. Euh, Est-ce que tout le monde est là Donc j'ai juste... Euh, je ne vais pas durer. Et euh, donc là, j'ai des dossiers avec moi. Et avant de montrer ces dossiers-là, <clears throat> et je répète que euh, je suis la PCA de la SNBI SA. Je m'appelle Nabou Québec. Je suis âgée de 29 ans et je suis la PCA de la SNBI SA. La, la SNBI SA, xaaral ma def nii moo dàq Nicki Minaj you know la SNBI SA euh, de de de nomination de dénomination veut dire. la Société sénégalaise de négociation et du business international. La société SA a été créée par moi, euh, financée par moi, et le capital est de 10 millions, et c'est moi, Nabou Kébé, qui a déposé les millions chez mon notaire en ville. Et je vais, taire le cabinet notariat parce que je n'aimerais pas ce problème-là ñoom seen cabinet di en empathir mais je rappelle que c'est un excellent cabinet pour toute personne qui veut aujourd'hui ouvrir une entreprise et que cette entreprise-là soit dans les normes je dis bien dans les normes et am conseil yi ka war allez-y dans cette dans dans dans dans dans ce cabinet de de de de dans cette association d'avocats et de notaires c'est les meilleurs au Sénégal ils sont professionnels ils sont à l'écoute du euh, client maintenant SNBI SA moi man maay PCA bi c'est moi la présidente du conseil d'administration et mon ex-mari monsieur 14 kilos lui c'est mon directeur général non seulement il est partenaire à 30% avec moi mais c'est mon directeur général et je vous ai dit que la guerre que j'ai avec 14 kilos ça n'a rien à voir avec le directeur général il sera mon directeur général aujourd'hui il le sera demain, il le sera 100 ans. Parce qu'une entreprise a une durée de vie de 100 ans. Donc ça veut dire que man ak 14 kilo pendant 100 ans dañuy xoolante ci ay bët pour Mariama Ndiaye nga xam loolu xam nga tas nga sëy bi <laughs> mais yow boo xamoon man nee naa la man na mu Einstein laa man maay doomu Einstein benn doom la am maa ngi nii toog sama kayitu jur dama koy changé tuddutuma Nabou Kébé je m'appelle madame Einstein mademoiselle Einstein madame Vergane déggoo ma de li gën a métti si nit mooy ngay xeex ku pare léegi comme da nga sëy bi kaay tas entreprise bi parce que cent ans dañuy daje maag moom xoolal entreprise bureau bi damay dem léegi fay arrière yi am sa jëkkër am na fa arrière Moustapha ba ma jógee ba tey fayagul waaye dégg naa monsieur Diallo borom immeuble woo na ma dama sa jëkkër un an fayul man ko d'accord jox ma jox ma jox ma jox ma facture bi ma dinaa dem fay xoolal désinstallé wu ma bureau bi déménagé wu ma bureau bi déggoo ma dara du fa bougé bureau bi lépp a ngi fa bureau bureau bureau bureau 14 kilos bleu blanc bi ma ko jëndal commandel ko bureau Dubaï bleu blanc mi ngi fa tege sama bureau mi ngi fa tege ordinateur yi caméra yi dara bougé wu fa xoolal Ndiaw Fall sama directeur général la te par force day liggéey si liggéey siwul pour man de parce que la muy am seen mbéy yi moom la lay dundalee te foog mu ñëw ñu ngeen sinon doo leen bii vous ne mangez pas jamono ji dégg naa lekkatoo leen donc il faut que ma ñëw ma dem fay arrière yam fa am. xam du fay man moom moom du fay bor fi mu ne nii jàpp dem fayal ko bor bi bor gi fay ma ko pour moom dama ko fay pour le bien du cabinet parce que en tant que PCA en tant que président en tant que euh, euh, euh, fondateur en tant que fondateur ci dois percevoir tu dois regarder les avantages du cabinet c'est ça l'entrepreneuriat entreprendre c'est pas que j'ouvre une entreprise avec mon dans un divorce. Non, on ne ferme pas avec le euh, divorcé avec son Parce que Ndiaoufal et moi, on a travaillé d'abord avant de nous marier. kon bu mariage bi dematulee sax liggéey bi day ne te Ndiaw Fall njëriñam ci man la ne te ay mbokkam xam nañ ko yaayam abiñan xam na ko voisin yi xam nañ ko xaj yi xam nañ ko wow wow yi xam nañ ko muus yi xam nañ ko tout le peuple xam nan ko kon Diaw Fale 14 kilos boo noppee jooy nit ma ngir yàlla dernier bilan yi nga def parce que yow tu me dois un bilan annuel xam nga directeur général man PCA dayay nommé budget nga ne année bi danaa bëgg def lii chiffre d'affaires yow année bi liggéeyoo dara dara dara an sama chiffre d'affaires année contrat yi nga indi 14 kilos ngir yàlla doo bàyyi jooy dem liggéey ñëwal naa fay bureau bi à partir de lundi ma fay bor yëpp tout nga indi sa secrétaire man cabinet bi nekkatuma fa man je si pas là-bas parce que dama la wóolootu fi ne mën nga jël samay tànk samay suuf tànk pour le moment naa fay cabinet bi utal say équipe nga dem liggéeyi SNB yi dafa am xaalis SA la te fi ne nii la monde entier dañ maa wóolu bul dof xeex bi maag yow la woon sa yoonu kenn néew yoonu sénégalais néew xeex nañ ex mari ak ex femme xeex na ba kontaan fi ne nii dañuy jël partenaire gi dikkal ko pour Mariama Ngoné Ndiaye moom du noppeegu moom moom ndaw ñaa man ndaw njaw faal à partir d'aujourd'hui noppal naa la solennellement je le jure devant tous les sénégalais bàyyi naa di la xas bàyyi naa di la attaque dootuma waxati si yow dara billaahi wallaahi wataalaahi ak alxuraan gi ma teg sama kër ak yàlla bu ma am dara sama àddina bis ni ki tey arrêté naa wax bi mais baalu ma la àq nag baalu gu ma la àq de àq mu duwul ko musa baax mais pour le moment teg naa xaste bi si suuf xaste njaw faa bi arrêté naa pour le moment parce que maa bëgg nga dem bureau ba naa fay bor yi boo demee nga nettoyé bureau ba mu set directeur am di da nettoyé nga jël sa biro nga liggéey bu rëy sénégalais yi naan la bul delluwaat ak kii de bul liggéey ak moom boo liggéeyul ko ñoo ne dunda sénégalais yi ñu bëri lekkundul naan ak taw gi métti gi fi ne ku ne tànn nga ñetti sa kër jëlal SNB yi nga def ko sa doom ndax sa doom la ndax ñoo ko àndandoo sos ko te dara xewutoon demal nga liggéey SNB fi mu ne ay milliards lay xëccoo fi mu ne ay milliards lay xëccoo ak Bergane te xam nga lu SNB yi am am nga si fi mu ne nii bu ma amoon 100 milliards am nga si 30 pour cent 30 pour cent 100 milliards ñëw faa xam nga lan la loolu mënoo ko jël ubbi sa télé boobu ba tey yaa ngi bëgg ubbi télé mënoo ubbi télé ñi lay nax rek naa la non je vais te kenn du la ja newoon naa la kenn du la jàppale maa kii lay jàppale maa ngi nii Nicki Minaj <laughs> maa ngi kii lay jàppale ku la jàppale ba ma demee ba tey gis naa sa télé tàkk télé sa tàkk naan non tel dina ma jox kër dina ma jox euh, kii dina ma def euh, convention ne ni convention 3 millions yi ngay bàyyi sénégalais bëgguñu nga avancer yow ku muus nga tu es l'un des hommes les plus intelligents que j'ai connu ndax yow yaa ma mën a nax kenn musumaa nax yaa ma nax yaa ma nax avec zéro franc kon yow ku muus nga man góor boo mës a àndal ay milliards teg sama loxo mais toi tu es le premier homme de l'histoire de Nabou Dash boo xam ne nax nga ma te yoroo dërëm pauvre ma yow la man musuma nangu sëy ak pauvre dégg mës ngeen ma dégg ma ne man damay sëy pauvre ma yàgg naa man góor amul xaalis dama sëy ak yow parce que aw ma temps aw ma temps yow yaay première pauvre de l'histoire de la vie marie mariés de Nabou Daas nga nax ma avec zéro franc en poche Ndiaw Fall sumil naa la chapeau tu es intelligent jàngoo de mais boo jàngoon toj fi je te accepte ton intelligence Nabou Einstein validé na sa muus sa ni nga tuutee noonu sa xel mi nu mu ndawee sa bopp bi ne ni mu def noonu ndaw lépp xelaat la tu es intelligent mais nag guerre gi dañ koo pause dañ koo pause pour le bien de SNB yi mais après parce que ana dama am beneen guerre bu may guerre mais en attendant mais parce que mënuguma ma guerre guerre yëpp comme man pose naa sa guerre pour nga dem liggéey SNB ndax xaalis baa ngi ñëw su ñëwee xaalis bi xam nga yow signature yi seg yi suñuy segment ak yow xam nga double signature dafa ne mënoo jël xaalis yow mënoo jël dara si seen bay parce que double signature laa def tant que signé mu du xaalis bu génn xam nga loolu yow man dama bànni kon fi mu ne nii bu xaalis bi ñëwoon sax boo ko bëggoon jonkan di jël foo nu woo ma waa BNDE dan may woo d'abord la meilleure banque du Sénégal <laughs> BNDE et eh noonu du BNDE de kii la non du BNDE man damaa bëri ay banque nag ban banque ti la sax banque bi nekk ville boobu moom dañoo bëri ay banque man dama banque bu ne maa ngi fa man maa ngi BICIS maa ngi BNDER ah maa ngi SGBS maa ngi Ecobank maa ngi BIS maa ngi UBA maa ngi banque bu ne mais banque SNB yi BNDER la de BNDER la BNDER BNDER bi nekk ville la voilà c'est la meilleure banque pour ñi am entreprise SA yi ak ñoom seen ba dem leen BNDER banque de Dakar waaw ah, banque de Dakar la banque banque président moo ko moom seen banque nationale dem leen foofu noonu doon danoo gaaw ci jàppale nit mu jóg mais duñ génnee xaalis ne ñu baax lan maa ngi nuyu ñu fa nekk ñu samay xuloo naa fa man mu banque ma dem xuloo fa man damay xuloo rek léegi Ndiaw Fall man arrêté naa fi mu ne nii xuloo bi xaste bi sa côté sama am beneen guerre si geer bi laa ne te guerre bi dana yàgg le temps que may guerre bi noppalul téléphone sa rongañ sa ex jabar moo la dóor <laughs> yow sa doom bu màggee ba yow a gis filmé vidéo sa doom bu màggee naan papa dégg naa 2022 banque de Dakar waaw BDK d BDK euh, banque non dafa am BND ak banque de Dakar wax ngeen dëgg man si nekk maa ngi sax d BDK xaaral ma génne sama chèque yi sax xawma fu ma ko def xaaral ma xaaral ma lijjanti chèque yi ñëw wal leen parce que man maa ngi banque bu ne ah parce que souvent man je suis dans tous les banques vraiment. vraiment maa ngi banque UBA tout le monde je partout man banque yi xam nan ma nga xam ne damay liggéey moo tax de si man samay entreprise banque yëpp la ne moo tax fi ne nii moom banque dañ may moo sama ba un franc man banque yi sama gestionnaire de compte xam nga banque dèjà dañ rawale des fois nu sàcc say un franc man banque yi bu sama xaalis xam ngeen man man sama téléphone gii laa yor léegi guerre bi laa ne entendant Ndiaye Fall noppi fomp say rongoñ mais Mariam Ngounda Dia yow mun a goo noppi ndax nga war a gis Ndiaye Fall xëy rek ne na maa ngi def SNB ay ay ay ay fekk fa kan Nicki Minaj te mu leer na sa jëkkër man la nopp oh quelle défaite défaite nationale a ngi noonu say mbokk na la téye balaa ngay dee oh my god oh my god oh waa soxor léegi nag dossier rouge baa ngi ni ku ne xam ne chemise rouge du jàmm tey moom ay preuve laa indi ndax newoon naa man may na bu preuve ba ma noppee si sama scooter ma woon naa euh, sama scooter yi trois scooters laa am monsieur Bergane indil ma ñaari scooters te nee na il m'a envoyé un mail ma leen mail bi xam nga loi dafa am et la loi dit la loi sénégalaise dit mot pour mot xam man damaa yàgg ci sëy dama am expérience ci mariage ba tax na góor bu ma bëgg a nax ci sëy dangay ngay juum man xam naa lu nuy sëyee xam naa lu nuy divorcé wee xam naa yan condition la la la loi wax xam naa tamit lan mooy man sa jabar laa tant que trois mois yi jàllugul trois mois yi idda yi bu jeexul je suis ta femme devant Dieu et les déggoo ma de ber bergaan te tur bi nga bañ a dégg laay wax sama carte de visite yëpp bergaan moo ci ne pendant trois mois pendant trois mois madame bergaan laay ne te xoolal dinaa la dóor na ma dóoree njaw faat ba fi mi ngi jooy di di ut lu ko fomp rongan yi di dox rongan yi di toog muy mu randuwaat dem liggéey waaye seen bi xam seen bay mooy njëriñam yow loolu laa lay ba ñëpp gis ko parce que yow kilifa nga mais moo sa njaboot ndax yow munoo am doom bu maase ak man yow taala sa taal mais il a mon âge taala à 24 ans man mage naa taala 5 ans yow da nga waroon xool si taala bergaan ak si marem bergaan nga recul nga recul si sama si si man nga recul génn ci mais da dangaa da maa bëgg jaay ni ko góor nga que da am xaalis que da am tuur man jigéen laa sama moromu doom laa awma milliard de mais xoolal j'ai mes dinaa la dóor ci dëgg te xoolal bul jooy de kilifa nga wala boo jooy nga yëg sa kaw terrasse di jooy mais bu jooy sa kanam njaboot ndax baaxul danga leen di um. nga ne doo recul ci man ok ok nga ne nga dëgër bopp maa la gën a wowle koko xam nga ko koko maa ngi ne bopp koko laa maa la gën a wowle maa la ëpp ay ëpp la ay gën la capable gën la sañ gën la ñu may wax te ma lu may def parce que je connais la loi et nous dans un pays de droit déggoo ma de moi je suis un citoyen et pas n'importe lequel je suis un acteur économique déggoo ma de <laughs> à mon actif une jeune fille de 30 ans 29 ans 30 ans c'est la même une jeune fille de 30 ans nga am ñaata entreprise SNBI SA intima mujj mi mujj juddu barki démb bi même pas un mois saas la saas saas saas saas la kan moo fi am man am naa SA am naa SAR mooy Sofa Luxe SARL la seen saaxu am naa Sofa Luxe saaxu am SN Mbay SA am intima saas am Balanga Luxury am Dash Closer am Dash Beauty Spa j'ai dix entreprises man ci ndum too xale bu ndaw bi fu ne maam fa banque di encaissé ay milliards xamaguma la déggoo ma de dawal Mercedes Benz xam ba may dawal Benz man xaw ma la man Benz laa tudd am ah, ma ne bis Benz moo tax tey ma solo solu kaana li ngay bañ laa def tey xoolal toute fraîche ni ma neex ma mel ni nag bu nu futti gisoo ma yow toute belle danga noonu bu ma solee te décolleté góor ñi dañ may xool danoo pervers tey PV yëpp danañ ma xool ndax damaa ngi so sexy laa def PV kaay leen xool ma <laughs> j'invite tous les pervers def sama ventre plat sama poitrine génn samay kaat génn mel lu ma neex déggoo ma de fi mu ne nii pervers yi invité naa la ngeen ñoo xool Nicki Minaj Sénégal dem Kim Kardashian la woon tey Nicki Minaj la déggoo ma de nga ne yow doo yërëm sa njaboot génn ci xale bu ndaw bii nga ne yow da nga jaayante ak mbagg jël sama alal. mais bu leen ma woo xaaral ma ne sama téléphone bi ne pas déranger parce que yéen xaaral ma ñëw ma def de pas sama téléphone. pour ñu may woo man ku ma woo ma ma ma la bu ma woo ma kenn woo yéen xamoo leen ku tooñ xam nga leen ngeen xam ku fay Sénégal tey ngeen xam ne tooñ fayu kaata fayu kaata kaata fayu koo kaata mu fayu te man man nga jox jox sama yaay yow nga ne yow da ngaa am beneen rôle à part Ndiaye Fall mi suy fa poobara ak Jinjeer yow da ngaa am beneen rôle yow manipulateur. maa dàq manipuler man maay manipulatrice numéro one le père de mon fils le père de mon fils s'appelle monsieur Faye c'est un ingénieur hydraulique moom lépp luy bateau mouche bateau lépp luy bateau waxuma la bateau yi bateau yi Sénégal yi nappkatu jën de je te parle des comment ça s'appelle des yachts mon mari c'est un ingénieur hydraulique mon ex-mari le père de Malick là c'est un ingénieur hydraulique déggoo ma de un expert en pétrole il fait partie j'ai toujours dit ça il fait partie des Suisses les plus riches c'est l'un des Suisses les plus riches là-bas Suisse instant yi moo fa ëpp xaalis ak Europe bi yëpp boo fa génne ki ñi koy ëpp xaalis cinq yi du ci génn il a cinq entreprises moom te bu ci nekk di def dix millions de dollars chiffre d'affaires déggoo ma de moom laa doon sëy ma sëy moom pendant dix ans j'ai fait dix ans avec mon premier mari xam na ma tàkkaleeg moom sama doom dama ko tuddee Mali dama doo ko tuddee Malick Alexandre nga koy tuddee man ko daa ko amul problème ma tuddee ko Alexandre Malick bu pare ñaan ko sama baat muy ree ma dëggal il m'entend c'est mon premier fans sama papaay doom boobu c'est mon numéro fans numéro fii ne nii mi ngi ree bay bëgg a dee ndax xamuñu si ku ñu dugg sama pass sama carte doom mi ngi nii Alexandre Malick Faye la tudd mi ngi nii Alexandre Malick Alexandre Malick ma tuddee ko Alexandre Malick bu pare ñëw ba Sénégal ñàkk sama baat 2016 ma ko mel sama baat mu yaakaar na may foo ma def dëgg déggoo ma de yow benn entreprise nga muy CCE ngay def chiffre d'affaires un milliard xaw ma deux milliards nga ne yoo yaayee yow sa ponk la ak sa yore yaay yaa toog sama bopp bii man. man na bu national mi nga xam ne àdduna bu ne dem naa fa Dangote man lay war fi mu ne nii pour ma ñëw représenté tomate Dangote ma lank lankaara sama ni sama passeport Nigéria nii ba ma ko joxee ne ma kaa liggéey si tomate Dangote bi nga géréel ma image xam nga man intimat yi man dama ko mën man dama mën ay composition man chimiste laa xam nga man da baax si chimiste man de naissance <laughs> nekk scientifique wow ma ci tomate Dangote gi ma lank ma gën nationalité ba pare daw ne ko ñëwatuma Nigéria jëkkër ba ma fa amul ma ko ma tas moom ne ko ma may ngeen ma jëkk nigérien bëgg maa yëb nigéria bëgg ma dofloo maa ngi daw sénégal moom ma passé nigérien bi daw sénégal ñoo toog fii muy ñaata jëkkër muy ñaar muy sama papa yi doom moo njëkk am ci jëkkër mu ingénieur boobu nga xam ne kaay dong la lépp luy euh, lu ñu koy waxee yóot yóot yóot yi mooy comme ça bato Titanic yi nga xam ne day hôtel bato hôtel yi bateau mouche yi nekk Paris pour ñu dëkk Paris xam nañ bateau mouche yeeg ak yacht nga xam ne dangay lekk am restaurant yu bët nga xam ne benn bu nekk parce que ay ça coûte 10 millions de dollars sama jëkkër lépp lu fi bateau buy taxawaal risque moom ko moo koy defar fii ba Qatar ma nekk fa ñukk ndax sant sama doom sama doom du tudd du sant du sant du tudd chrétien mu ne ma chrétien mu ne ma sama moom juif la sama doom day tudd Mali wala du tudd Mali may na la hôpital ma dem déclaré tuddee ko Milik wala mu dem bind Mali ma tuddee ko Milik ma ñëw gis Milik bi man nag yow Malick wala Mélik mu ne ma non moom Malick neexu ko Mélik la man yow doo jullit ma ma noppi ma accouché ba pare ba buusin ba pare jël xale bi daw fi ne nii man lay dàq parce bëgg na mais xam na ma moom xawma kan waaye Jacques Faye tu sais qui je suis si tu t'aventures dans la guerre avec moi là tu me connais on a été dix ans toi et moi ensemble dara daloo la tu ne me connaissent pas toi Tu connais ma famille mieux que quiconque. On a été 10 ans ensemble, toi et moi, même lit, même chambre, même appartement, même maison. Nous en France, scandale de France. Avant de tuer un délinquant fiscal, tu ne payes pas les, les taxes, les tous les documents. Nous en France, de fait, je suis en France. Nous avons fait fixer. Toi, tu me connais très bien. Avec tes comptes je vais tuer tous tes comptes offshore si tu ne me laisses e tu as intérêt à payer le côté de ton fils parce qu'il commence le 2 septembre. La maîtresse m'a appelé. Moi, actuellement, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent sur moi. Ah, paye l'école de ton fils actuel, Blaine, il va sa dernière année là-bas. L'année prochaine, non, non, c'est qui parle là Il est en. Euh, qui Il a. Euh, euh, qui t une petite session, moins i il a eu sa, sa, sa, son diplôme l'année dernière. Là, il est en primaire. Si tu rappelles la, la première année de primaire de mon fils, Jacques Faye, toi aussi tu vas prendre je vais te live ici en wolof prendre mon en France te live en France toi tu me connais je suis capable de tout moi je suis une la maîtresse et pay l'école du petit je viens après sur parce que tu m'as encore rien fait yow Bergane yaa xam Bergane yow nee naa la sëy bi mën la nooxoon da ngay sëy par force Nabou Dash d'accord damay dugg man damay sëy par force moo tax yow sëy bi doo ci génn yow yow moom laay wëlbatiku carte ki ne la Yaram Mbergane divorce du am sama diggante ak yow du ko am tey du ko am suba xoolal juum nga rek xam nga envoyé nga ma mail dama koy liir léegi nii liiral ko sénégalais mais yow juum nga rek dëggal sa bopp ci may baat bi xam nga ñaari jabar nga am xam nga ñaar nga am kenn ki 53 ans la am kenn ki 50 ans la am kenn ki dafa jabet kenn ki dafa am insuffisance rénale xam nga ñoom ñaar ñëpp seen tànk ñu ngi ci xottu gerte léegi pour ñoom ñëpp ñu kër gi jàmm amaat fa il faut nga ba ma fa ndax man maay tuuru kër ñetteel bi mooy tuuru kër gi polygamie ak xeexante wujj tey la jeex Sénégal tàccu leen ma réglé naa kaa kenn benn wujj du xeexati wujj yaaram bergaal suturaal sa bopp sa njaboot déggoo ma de ñaari jabar nga am maa ñetteel bi man insuffisant rénal ma samay ñaari reen ñu ngi dañuy dox ndax xam nga man damay përie yow yow xam nga sax fu man man ñi may def si la damay jékki-jékki rek tëb jàpp plafond bi def nii génne affaire de Marimar ak Sergio ah <laughs> Zeyna la guerrière dina koy xam jékki-jékki rek jam la fetel bi maa ngi ni Zeyna la guerrière xam nga ni may coiffure Zeyna la guerrière te yow xam nga ne man ci kaw lal bi kenn mënuma mu soo gis ku mel ni man ndax yaa ma ko wax dina joomal na ma fekk nga ma sama duus may gomeew nga ne ma si yaay sama saytaane maa la woo ci duus bu nga wax ma ko euh, duus duñ si wax duus kenn du ci wax saytaan dafa bëri doole nga jóge si néeg du waaxu waaxu ba si duus ni mu xool moo xool la nga yaay sama saytaane yow xamul sax li nga wax yow maa ne sa xool sa xool maa koy mboroj mboroj di ko mbiri mbiri di ko piip di ko arrêté di ko stop déggoo ma ne yow samay baal lan la see poussé tayoo ko mais dangaa professionnel mais may wax sama ñaari tata yooyu noonu ki am 53 ans yi ak ki ki am insuffisance rénale ki moom sama yaay bopp la moo tax du ma bëgg wax ci moom lenn lenn lenn lenn nag bokk ci kaa gi mama Bintu tawgal na la na la na la na la xoolal loo ma def baal naa la yow amuloo ak dangaa baax dangaa sell ndax keroog bu ma yaaram di takk dalaa woo téléphone takk gu ma de dalaa woo téléphone ne damaa bëgg takk nabu nga pa mu paas ma la yow ana bi takk di tàggoo mu tàggu la nga ne ko ah boo takkee dangaa war a takk man de duma kenn pour nga tere laa takk takk ko. nga woo ma téléphone ne ma ah yaaram de ku baax la suturaal na ma suturaal sama njaboot kon yow tata bintu xoolal naanal ndox mu sedd maa la bëgg piir aaw buuru këram aaw ni yow lay mel yow yaay aaw yaay vrai yaay mooy yow nee naa la jàpp ma bergaan rek ba ko mu dem ba nga jàppee bergaan ba tey ba ko yow ànd nga ak berg yow ah yow yow a bëgg tóotiire ak sama ak yow bergaan tóotiire na ba a demee yaay booy ndax sa doom taala ak marem wallaahi dinañ dem woon naa ko téléphone keroog bañ waxtaanee fajar ne woon naa yaay booy nga ne ma naam man li ma bëgg mooy gëndal la billet maak ren nga dem maak te dinaa xaaral bergaan bu ma gëndal billet de ndax fi mu ne xaalis tamit dafa légalu dañ koy négocier xaalis bergaan dafa rax c'est tout de yow billet bu lay yóbbu il faut mu nekk ñàkk na bu naaj bàyyil ma ñàkkal la ko ndax sa doom laa ndax sa moromu doom sa doom la te mën nga ma jur te yaa ma ne woon nabu yaay sama doom kon bàyyil ma ñàkk si intiment yi sama ñaq laa gi ragale la ko ba mu mat biyee màq ma indi la ko baa ma jaay samay or yëpp jënd la biyee màq yóbbul la ko man ñaan ma kenn biyee màq bu ma kenn may sama ñaq laaj jël jox ko ndax sama yaay ndax loolu laa koy xool yaay sama aawa yaay man yow yaay original aawa yaay bokkuñ Mariama Ngoné Ndiaye sorcière kooku aawa yaay kooku aawa yaay chinois la pëkkutii la kooku mooy aawa yaay pëkkutii waaye kooku woon moom xoolal du nekkati aawa yaay parce que njafaar mu ko takka si disile xale yi laay xool ku ci bëgg sëyeeg Ndiaye Fall man maa leen sponsorisé jox la yi nga ko weex taal ndax Ndiaye Fall da bëgg jabar ju weex fi mu ne nii ni mu mel nii mooy ni mu mel mooy reefam fi mu ne xees becc am si ree ba dof xale yi laay xool fi commencé sponsorisé si gelem yi laay xool fii baa ma wagel bi mu àndaloon fee coupe du monde ba mooy journaliste boobu ku anamu sax moom yow comme yàgg ngaa noog Ndiaye Fall tey ngaa yoon noonu organiser le mariage privé comme dangaa mos a ñor Ndiaye Fall dem si groupe topp yi xamoon nga ne danaa ñëw seen kaa cas yëpp ay traité un par un saa yi ma xëy cas bees ba cas yi jeex di yaa ne woon Ndiaw Fall sooy de moo woon coupe du monde nga ne xamoo Ndiaw Fall nga faa fooy la bëy ànd ak yow coupe du monde njoos nga ne njoosu la ok njoosu la bu ñuy indi say bu indi dara bu yow yow ñëwal sa jëmm rek intima yaa ngi dina dinaa diw nga wextaal jool si intima yi nga belli nga xat xam naa ne xatoo parce yow ko la koo xam ne géeju mbàmbu laa nga xadoo de ndax ku mën a bàyyi këram dem ba dem ba coupe du monde ci jigéen ànd ak ay góor am nga fit am nga fit de man sañu mu ne mosuma ay góor wax <laughs> nañu ma lu ne waaye <laughs> sañu ma ko kaay ma may na ñëw faal ma nga wane ma Mariam Ngoné Ndiaye góor ba ñeent fii nii foog góor ñu accepté jigéen accepté polygamie Mariam yaay de yow moom doo aawa yaay te maa ngi la di jëntil ñaareel boo xam ne wee pep pep pep bambara raay jëli indil la mu sëyal la boo waxee mu naan la ani saxoma ana asiri mu ni ana mo ni ni ni yow xoolal du dangaa ne nga làqkat nga mbaam laa lay indil mbaam xam nga ay mbaam lañ sax yi mbokk laa lay indil sax faf Mali dafa danoo sedd congolais laa indi xam nga Jafaar dafa xas na ba ñam congolais fi mu ne lay wut Congo la laa lay indil jóge la ko Congo indi ko ba fii may ko njaw faa par yóbbu sama kër yaay njaw faa di fa aye xam sama kër yaay ak sa kër soriwul te njaw faa ma mënal naa ko loolu la dof la la waaye ku baax la xam sama kër yaay ak sa kër da ngay jéggi njaw faa xam fi ne ni amagul xaalis mu utalee appartement jabar ju bees ji sama yaay laay woo laay ñaan mu xam sama yaay fi mu ne daf maa tooñ fi ne lu mu ko ñaan daf ma koy may ndax daf maa tooñ démb woo naa ko nee naa ko génne si xeex bi nee na man kay man kay yaay booy dama juum man kay génn naa ci xeer bi baal ma akka ah fa nga naroon a commencé yow mi ma génneel paaka dootoo ko defati mu ne ma kay paaka bi kay sànni ko yaay booy da ko saa déggu may paaka bi de yow pour vraiment di xew si réseaux sociaux yëpp à titre excusez wu ma moom ndax baalu ma la ak mais à de compensation ak à de pansement de ton cœur sama rakk jigéen yi nekk Congo laa la indil kenn mu dëkk sama kër yaa ngi ay si moom gratuitement say dëgg lépp bàyyi sama loxo takk beeg càng beeg xew beeg tout xew bi sax garaawut sama sama xëy xew yaa ngi fi am nañu ma solutoon borom baas bi amel na ma xaalis si ne bu waatee dama desee naka waat baas benn baas rek doy na xam naa ne say mbokk sanatul ñëw <laughs> takk rabu daas bépp mbokk ñëw fa du ñëw wala xam ne fii nii nii xew mi jawtul mi am ndax doon <laughs> ndax kenn ñëw si xew mi xam nga lu fi ne jaratul baas léegi nag boo paree rek def ma signe woo ma téléphone par présenté la xale bu jigéen bi ma yaa ma yow yaa ngi door am cauchemar xam nga vampire ton pire maa ngi nii xool ma je suis ton pire cauchemar maa ngi yow maa ngi yow maa yow maa ngi yow Ndiaye maa ngi yow ba ba te buñ agsee barsàq doo dugg ndax maa yor caabi ji dama koy tëj ñu koy corroché nii yóbbu la safara lu ñum ñumali la ndax ku dëddale yàlla dafa ne ku dëddale diggante yaay ak doom maa ngi lay rëbb que yow c'est sûr safara dafa leer ndax yaa dëddale njaw faa jaayam abi ñan que yow c'est sûr sûr sûr et certain certain certain certain que àjjana xentu kon pour le moment xam la nga xam yàlla ma fu soxla loolu nee boo ma tuubee boo ma jéggal mais sa xol dafa lafetul donc mënoo tuub mënoo jégg c'est trop tard pour mais ndax yàlla bëri na yërmande mais boo eh, eh, jé boo boo jéemul jéemul tuub jée boo jéggul jéemoo baax mag yow bul egsee barsàq i man yaa ma ngo jën yaa yow xamoo ci loo dugg de xamoo ci koo dugg de yi xanaa xamoo ma man congolais la xam nga Patrick mbaa Patrick Lumumba daa xeex ban rey ko xam nga Patrick Lumumba jàngoo moo tax doo lire ay livre ndax dangaa dof ay piqûre fas ngay def xaaral bi sama assistante bi xëy si na tey kaa moom man dañu teel a xëy si man kaa yi dama ko teel a joxe maa ngi ñëw. moom parce que li yaraatul day wàññi ko kukuma kukuma yàlla yaa si fa gàllaaj ma sama ndey kukuma kukuma lom de la ne kukuma mooy sama gaadit koor kukuma rek tëjal buntu bi daa bëgg feeñ boo feeñee sa combat bi doo am de ah waa dama juum xaadim temps kon laay wax ma wax xaadim temps lu ma jum waa jël jël wool waa ji mu ñu nopp jànk bi waay <laughs> Fatou envoyé na message démb ne ma xolal bàddi sax <laughs> xaaral woon leen ko Fatou Fatou naa leen Fatou man mii maa ko yàq Fatou bi man lay waxee fi mu ne ne ma tataan na bu yow bàddi sax loo gis man la ma ne ko ah Fatou maa ngi yow léegi ba bàddi sax téléphone bi may live la mu tànn bu bandi wa sax xoolal loo gis man la parce que yii Fatou nag <laughs> dépression Fatou baa ngi yëg <laughs> nekk mu jege ma mooy ci waaye ba moo soree affaire dafa gën a yéeg foofu mu jege ma pour man maa ko mën a calmer nee na man lay menacer noonu te xamal ni que maa ngi xeex ak ay ponkal doo Fatou du def léegi yow ma yaa am nga ne gars xamoo xamoo Patrick Lumumba xaw ma Patrick Lumumba moom mu ak Mobutu ba Mobutu rey ko tubaab yu rey ko jàpp ko yóbbu ko si àll ba rey ko xam nga Patrice Patrick Lumumba yow xamoo Laurent Désiré Kabila xam nga Mobutu Sese Ko yow xanaa xamoo fu ma bokk yow yow xamoo fu ma bokk ndax jàngoo cultivé woo doo lire ay lii doo xool documentaire toppoon la loolu di jënti man dëkk naa Ouest Foire ba génn fa mosuma fa xam baar hôtel ba ma njaw faal waaye ne ma fii auberge la man ko la wax man Mariama moom ko ma ko Mariama na di nan ngay amee jëkkër di xam fu auberge yi nekk ak hôtel yi nekk am nga fit di la sauver nag ba kenn mënu laa tuumal xam nga lan la loo jur mu nduroog njaw faam yow loo jur mu am nga saan bés boo fi juree ndur joom mu ndur ak ndaw faam xam nga jur nga Mouhamed mu nduroog njaw faam fabi fabi xaw ma fabi xaw ngeen fabi xaw ma tuddul benn fabi kooku tuddul fabi nga naan ay fabi di neexal ay tuddul fabi de njaw faam man mi la ko na doon tudde ñëw ba sama kër waaxul sama jabar am na doom bu jigéen yaa am tudde ma ne ko kaay ma yóbbu de màkk yi jubóowuñ la ma tuddee doom ku ma jubóowu doom doom wujj pour lan ñaan ko na ba sama kanam ñaan na mu jël sama jikko di baax du baax di tuddee ko keneen kay bu mu sama jikko turóondoo dana jël juróom-ñaari jikko te bu jël sama jikko day baax baax na tuddee ko keneen man ko non rejeté mu dem ci yaam yaam rejeté tur bi xam nga ci ku mu dem ci doomu baayam faala faala du faala faat faal kookoo jàppale njaw faal biir jur ba ñëpp xam nañ ma njaare bu may dégg xam nañ li may wax maa ngi da ngay gore njaw faal faala mi lekk ngeen ginaaram yow ak Mariama doxat doxat ci këram lekk xaalis paalaaji ba mu jeex dem leen tuddee ko doom njaw faal dégg ma tuddee ko faala Mariama Njaay bi neexu ko nee na tudd tudd faal naan fabi sa doom si këyit xam ci nekk faatu faal faala pour famille bi noonu forget Mariama Njaay sa jouri xew sañ mbokk ji kër ñëwuñu wanaa fàtte vidéo yaa ngi si sama TikTok yéen lu ma def am na preuve man vidéo man maa moom man man maa moom ci YouTube manaama Ndiaye xaam tegal sa jour xew sa benn mbokk ñëwut sa bekk mbokk kër ñëwut man mii sama mbaax encore ci rek maa woo Youssou Fall taawu Ndiaw Fall seen taaw kër woo ma sama ex xarit boobu woo ko fekkoon ko kër nday nday naati léegi ñu juboo yéen yéen famille Ndiaw Fall danañ juboo mais instant yi rek la leen ba ma ba ma xas leen ba nga ràpp ndax yéen a ma tooñ euh, ma woo Fall ma woo Fatma Fatma ne ma ñëwuma kii dafa bon def na sama yaay lii dafa ma ne ko kaay bu xool ci sa yaay de ndax xale bii seen doom la bu màggee di dina gis bëgg photo dafa am du seen parent ñëw leen Ndiaye Ndiaw Fall meen ñang ñu woo ko meen ñang kaay meen ñang tëdd ba lank ci suuf ne man bu ma naree dem ci xew yi man yàlla naa dee dew ma dew ma ma ne ko meer kaay ci xew yi mais na ma ba mu ko waxaatee ma bala tey man ñi ma am yëpp yaa ma leen gën a damay dama lay bare Ndiaw Fall woo yaayam naan ko ñëwul soo ñëw dama jox la dépense yaayam ne ko mbeppe dimbali ma Ndiaw Fall di nga xam ne maa la jur juróo ma ñëw ma yaay Ndiaw Fall ñëw si xew Mariama Ngouda Ndiaye gi xew gi comme dëj soosa yi toog fa joolaay toog fa jaax la xam nga joolaay danoo bëgg ambiance joolaay jóge ba Casamance ñëw soo yi jóge ba fu ne ñëw toog gisuñu lu lekk gisuñu lu nu naan xew mi amul ambiance nu jaaxle Ndiaw Fall woowa ne ma Nabou yaa mën a sauver xew mi xale bi sax amul paanu bàjjet ma dem jënd sama paanu xam nga man damaa damaa capable dem jënd paanu bàjjen aw ma du ma nag man man nag damay def li ma mën du ma dem jënd paanu bàjjen bu 1 million ndax jarulu ma ko dañu dëgg ku gis yëre yi ma paan yi ma fa yóbbu paan mi 500 yi dara gënu koo dëgg tëgg te baax 1500 la gëndal paan gën sama yëre 3000 3000 4000 4000 ba ba ma 100000 ñëw yëbbil ko ko ndax am naa ko mën naa ko mënoon naa kaa defal lu ne waaye da koo mérité wu maanaam Mariam Ngounda Ndiaye moom mérité wu dara si àddina ndax daa bon nekk sama paan bàjjen wa am bongo ànd ak njaw fa ànd ak Fatma ak Youssou ñi ñi mi bañ gis ñaari meilleur ennemi moom laay àndal toog ci saalam ñëw sañ sa ba jekk toog jàkkaarloo moom nii njaw fa taxaw ne maa ni <laughs> ay mbokkum ñaw yaa ma jaa xool ma naan ma kenn ki naa ma Amérique laa nekk speak English man ko xew la nekk baa bon génn speak mënul ne nekk ci xew di explique dañu tudd xale ba tudd ba pare di tufli xale tekk sama loxo ma xool xale bi xool ko ñaan ko ñaanu xaas ne ko yàlla na nga màgg te am te am te am nday am baay te bu nduroo sa baay bu nduru sa nday yooyu sa jikko bopp rek mel ni sa turandoo faala mun a joxe ñam mbaax te teel te tabe waa jur ba yëpp seedal nañ ko jëkkëram pa jëkkëram alaaji ba mu ngi koy jooy ba doon noppee ko yàlla na nga mel si sa turandoo bu mel ni si ba bu mel si sa yaay bu xof ko si nopp yi delluwaat leen seen liir lii lii toog doon ne ñeew xam nangu naa nangu naa wax bi lii bi ma ne ah ñaan bi nangu na ma toogaat rek bongo bi jóg xale ma woon leen lii mariage ma def mariage Nabou Dash mariage sa co-épouse <laughs> sur internet de fu ne mujj naa leen sant de leen gërëm ndax yéen a may sauvé xaaral ah, ma def Nabou Dash mariage sa co-épouse ngeen xool dama fa sañ sa di fa baatre njaw faa ko mun a yow la njaw faa ko mun a yow la ma yaa ma toog koo muñ mu jóg nii nii dem ci néeg ba wax fekk ko si ne maa ngi dem muy naa ñaari saa ñu naa ñaama naa nee na naa ma ko Mariam Ndiaye maa ngi dem moo tontoo yaa <laughs> ma tontu dégg maa ngi lay dóor sama loxo du la laal dul noppi jëndal ay musuwaar eh, eh du woon mariage de xew la ma nabu daaj baptême co-épouse ama ah, rek waaw kay baptême de son co-épouse moom naa ko gis naa dem assi bi ma génnew naa def la même chose ma gis ko yow toogal rek maa ngi ñëw man na fi mu jamono ji ku bëggati wax si Nabou Dash di nga réfléchir à deux fois ndax ku euh, y a les choses secrètes ndax man sama téléphone gi lu ne laa am monsieur Bergane xam naa ni yow nga yaa ma seetaan jël sa maa ngi ñëw ci yow document yaa ngi nii damay traité beneen cas ma def en attendant maa ngi ñëw man j'ai toutes mes preuves et samay avocat xam nga samay yor nañ document yi boo ma porté plainte ma riposté la yow xam nga détournement bi nga détournement de d'objectif nga def usage de faux utilisation de données privées yow moom yaa ko def sama téléphone samay bagage yow mii boo ma porté plainte yow la ñuy tëj maa la gën a bandi avocat sirale woon laa engagé fi ni jël nañ avion ñu ngi ñëw yow ci ma ko ne Mal Ndiaye Fall tu penses que moi je suis une illettrée ah c'est pas comme tes femmes qui ne sont pas allées à l'école moi t'es t'es frotté à la mauvaise personne je suis sexy j'ai des gros seins j'ai des grosses fesses mais j'ai pas de moineau hein je suis pas une belle et toi je suis une intelligente femme moi I went to school yow sax déggoo anglais ingénieur bu déggu anglais foo gis yow yow est-ce que yow gaa ingénieur nga diplôme ingénieur bu jaaxal na ma de ingénieur bu déggul anglais ah jaaxal na ma de man maa man man est-ce que du ma tas sëy dem toog ci Karim man kari ma ma jig de vraiment Karim daa xam naa ne doomu Ablaye Wade la Karim moom Karim moom Karim Wade moom léppam moom léppam vérifié na c'est vérifié doomu Ablaye Wade la c'est jàng na c'est vérifié am na xaalis parce que man bergaan mii vérifié yi yi ma yi ma vérifié di vérifié wul ingénieur bu dëkk de bergaan kaa kaa génn man mosu diplôme bi mosuma kaa gis loolu moom leeru tamit foog nga génne kaa vérification diplôme bi parce que ingénieur bu déggul anglais xam nga dugg sama page Facebook ma YouTube moom seen seen accès dafa bëri si man hmm série bi moom il faut waa TFM sponsoriser ko <laughs> lii foog yóbbu ko télé fee série bi moom sénégalais yi foog ngeen marche ko ngeen marche ko ne je no réclamons la série de Nabou daas vraiment ndax fi mu ne nii kenn ngeen dikk bi kenn <laughs> kenn nelawatul ku nelaw bëgg a teel a yeewu pour seetaan série bi série bi chaque sept heures du matin neuf heures lay am lii série bee neex Euh, yéen maa baax Sénégalais fi mu ne kenn stressé tul fi ne nii brigade yaa ngi neex police yaa ngi neex marché yaa ngi neex syndicat yaa ngi neex fi ne ku nekk gàddu sa téléphone dëgg TikTok yaa ngi neex fi ne kër yaa ngi neex débat yaa ngi neex nii la dëkk day neex waaye dëkk boo xam ne xeexuloo rek Bamba Sall dangay saaga nday xaaral ma supprimer la boo boo boo gisee sa yaay nga wax ko ko saaga ndey moom boo boo demee sa yaay nga wax ko dégg man <laughs> sama yaay day noppalu fay na téléphone yëpp nee na bëgg tudd téléphone <laughs> ko si ko yaa tax fay sa téléphone mu ne ma damaa sonn si àdduna yëpp ñu ngi may woo sa doom dina la rey sa doom dina la rey danga may rey wala ko di rey wala dama tëdd nelaw waxoon naa la yaay dangay réglé ah yow sa doom mooy gérer cas bi nga bëgg nga bëgg nga bëgg gérer cas bi hmm. yow munoo wax munoo déggoo olof munoo wax yaay yow doo sigg ba xool nit nga nga bëgg jël cas bi yow man xam kañ nga am fit jékki-jékki am fit nii di ma yóbbu hôpital ni may pikiir <coughs> seen pikiir gën ma ne danañ wax xaat daf maa gën a ràng ci pikiir bi moom gën a dof loo fi mu ne te dof bu bees laa fi ne nii dof bu accompli la laa <laughs> eh. non cas yi ñu mën na la moom grave non yàlla may na ma nag fii bu ma rayoon bu ma rayoon démb bu ma rayoon biig cas yi du am xam nga yàlla daf maa bëgg moo tax rayu ma maa ngi xam ba benn bandi doon na bergan dangaa bandi boo fi yónnee ay bandi moom sénégalais moom danañ xam bis ni ki tey moom vidéo baa ngi nii ku bon sa ndaya tax ku baax sa ndaya tax kaata fayu kaata fayu kaata fayu xoolal Ndiaw Fass ginnaaw di mu seetaan xoolal Mariam Ngouda Ndiaye xoolal ko xoolal ko ni mu rusee ñaw sa xew laa ñëw fekk la fa bàttal la def fa ambiance xew bi damaa ñëw fekk ñëpp toog pour croiser les bras mu ñu def fa ambiance indi bongo maa ni naan nii ñëpp di fecc ñëpp ñëpp ñëpp ay noon tout le monde kër gi yëpp joolaay tout le monde jaxasoo nekk benn Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xat ñaar mu ñëwee joolaay yi ma jaxasee loon yaa ñëpp di fecc def ni ñëpp di ñëpp di fecc ñëpp di fecc ma may fa ñëpp xaaj dem ñibbi say propre mbokk dañ laa abandonné sa jour yi xam ne doonoo bëggoon fecc yow nga kenn du fecc xëy moo xam ne amoo ay mbokk sa mbokku jëkkër ñëw na kenn ñëwuñu man rek maa ñëw nga ne rek ma def ennemi ko ko def ennemi man sa doom de bu màggee fexel la bu mu am réseaux sociaux ndax de vidéo bi dina ko gis te li ma lay conseillé mooy li raay wala suuri liggéeyal say doom doom gàllaaj la de doom alal la de sa xol bii soppi ko di déglu alxuraan man sax gis nga alxuraan yaa ngi koy dégg fay yaa ngi dégg alxuraan fay man sax suba tey dama dégg alxuraan man damay yee damay damay damay teg sama alxuraan su may nelaw su ma yeewoo dama teg alxuraan man sama kër gi baan bi fa jub si yàlla taw taw dina dégg ba tey taw yi mais parce que baan bi dañoo bëgg ñu sama kër <laughs> taw di taw su ne sama kër gii balaa nit di fi accident ba def lu bon xanaa yàlla nangu ko de waaye kër gii kër gu sell la damay jàpp di julli dégg sama alxuraan vraiment jaay sama intima sant naa yàlla macha allah alhamdulilah rabil alamin cinq fois kon Mariama Ngoné Ndiaye jéeg ju baax booy xewle say mbokku jëkkër dañuy teew say mbokku jëkkër bu ñëwul rek bu kenn ñëwul mu am na ay mbokku jëkkër yu sikk mais il faut sax ñaar nit wala ñett mais kenn ñëwul tout le monde association personne ne vient du naan sa goro sax ñëwul loolu tiitoo ci sa yaayu jëkkër ñëwul sa maamu doom ñëwul kenn ñëwul ci sa xew. nga ne dangaa baax yaay jéggi baax sénégalais naan la yaay jéggi baax yaay sëy roy leen ci moom ko roy leen ci Mariama Ngounda Ndiaye mu ne roy man leen ci moom man mi sama goro tagg sama goro nga xam ne fi ne nii daa feebar xas gi ma koy xas taay naan nawu daay ma ne nii nelawatul yeddatu sëriñ si lay wër ut ku ma jubooleeg moom te ne woon naa wax duma ko bàyyi ndax sama yaay la su ma noppi naan orange mo ne cinquante mille nga jënd sa ravitaillement ndax maa ko la tàmbaloon man duma la bàyyi ne naa la ma doon a mën a àndaat ak yéen ci àndaat bi noonu leen ay condition la du ma ñëw seen kër bu leen ñëw sama kër dañ fekk ay orange money ak ay wave leen woowu ku ma ci woo téléphone man ma yekk lu mel ni xeme bàyyi may wave man mu benn xale woo man mère ñang laay woo di ko wave ñëw ma seen kër lekk ma seen lekk jox ma leen loxo ndax dañu ne dangereux dañu naa bëgg récupérer te lu ne mën ngeen ma ko def léegi monsieur Bergan li tax ma ñëwaat ci kaawam mooy waxoon naa ko euh, maître ma Diarra Fam léegi sama avocat la maître la tudd léegi tuddatul député honorable maître la sama ko engage sama cabinet avocat waxoon naa ko yeex quand je naa ko euh, mam jaar mais mam yaay mam jaar ma ma waaw ma ko bergaan bëggul cooli de ndax mënoo ñëw sama kër chaque semaine ñetti moto ah yónni say say frère les frères bergaan demoo bergaan la ils sont venus prendre mes trois motos ils sont venus prendre mes motos permission et autorisation Et il m'a rendu hier deux Mais Belgan, tu te de qui Moi, je suis moi. Je suis moi. Toi moi, on a levé des cochons ensemble. toi, il faut que je me rassoie. Ramoyao, Bergan, toi, tu te fous de moi. Et tu me montres que tu ne me pas. Parce que tu sais, un homme qui se respecte, inspecte sa famille doit faire attention à, à, à ça là. Ce que tu de respect à tes enfants. Tu pas, tu pas, tu es plus petit que qui Tu es plus petit que moi. Moi, j'ai l'âge de ton fils, l'âge de ta fille. Je magué naa sa doom bu sa doom bu góor ans sa doom bu yóbbu ans sa doom dina ci sociaux yi ba ngay jooy bu pare àndaat ak yow sëy ak sëy bi parce que yow sëy bi moom doo xoolal bu yeboo nga bindal mi say lettre naan may nga ma baat xam nga Ndiaye xaaral ma ne leen leen meer nee na daf maa meer sama baat mu ngeen gis baat yow ba nga ma takk danga boo bëggee tas sama kër yaay toog may ma sama baat tax nga may meel baat meel baat validul mag yow demaguñu mairie de église ak jàkka lan dem kon sa meel bii c'est benn document dama ko signé parce que amuñu benn certificat de mariage mairie xam lu nu am certificat de mariage mosquée te sama certificat de mariage muy sama pochette mu ci biir pochette bi. te ku ñëw naa ma jox ma ko bu ma la noqee sama paaka yi ma def fii bu may changé tur imam bi imam moom ne woon naa ko ba muy tax si ne woon naa ko imam nga fi ñaari sëy mooy sëyu njaaw faal bi ak sëyu kii nga sëy bu tekkee ko sa kër laa la jëm la paaka imam ne nii woo na ma di dina ma sëy bi moom maa ngi ngi nii di ko wàcceel kaay ma ne ko ne wàcceel kaay bi doo mën bu ci dëkk bi ay mordom mu ne ma waaw waaw bi kay du tas bii kay taalibe bi ma ne ko taalibe bi lañ ci nekk yëmb naa tey suba envoyé naa leen cent mille francs ci daara bi ndax nu wàcce waat ma kaamil chaque jour ma wàccee kaamil ndax yow fi ne sa rab bi laa bëgg faj njaaram bergaan xam na ne Nabou Dash du sëy ma jël décision ndax rus sénégalais yi ne damay sëy sëy bi dama ci dama ci sëy ba dee li ma waxtu tàndee géej sëy bii ba dee rek damaa ko doon way sama jour mariage sëy rek ba dee xoolal bergaan sëy bii maag yow dee moo ñu tàkkali doxam xam def nañ pacte de sang sa bureau maa ngi pacte de sang jam nga sa deret ma jam sama deret nu def nii nga def nii ma def nii xaw la pacte de la man nii maa ngi sa saa xoolal yaa ngi sama deret maa sa deret lenn moo nu tàkkali mooy bàmmeel pour sa ñaareel bi nag moom moom duma wax say waxam parce que dafa perte insuffisance rénale moom ku mu dal bu amul yërmande rek dangaa nekkul nit man ko am insuffisance rénale du ma wax ak yow dara dara dara dara dama lay bàyyi ak yàlla ndax yàlla mënu tiim tiim la te du jël feebaru ah du jël feebaru Amina jox ko Khadija day jël feebaru astu jox ko astu man dama waxut ku feebar insuffisance eh, rénale daa metti naa ne say garab te noppalu te génn ci man ak sa sœur bi nekk France yor restaurant bi su bëggee sa restaurant bi dox génn ci man yéen tout le monde contre moi maa leen mën Sidi Diop nee na yéen ñëpp contre moi door kurpañ maa leen man yéen ñëpp contre moi man maa leen mën déggoo leen ma de yéen ñëpp dooy leen vous allez tous pleurer un par un yaa yónni moor yaa yónni moor n'est-ce pas yaa yónni moor sama kër moor wax na ma lépp vocal na ma lépp tee naa vocal bi yaa yónni moor pour mu yóbbu sama yére yi précis jox sama yére nga doodeele mag koo sama yére du jël nga dëgg yóbbu nga ko pour ñu dëddalee ko bois sacré sama yére bu di moo lay suulaat nank sa kër da lay suul soo génnu si man say mbokk daan la suul bois bois sacré yëpp bu leen neexoon dugg di jaleñ xam nga jaleñ sénégalais comprendre lan mooy jaleñ jaleñ boo ko bëggee def nit mu jàpp ko day fekk nit ki tooñ la mais boo demee si jaleñ fan jaleñ yi ne jaleñ yi diw dalaa toon te tooñ la jaleñ yi dañu lay jaleñ yow moom la ñuy jaleñ sa ndey yow déggoo ma de jaleñ képp ku ko def dangaa xamul jalañ man sama maam sëriñ la congolais la déggoo leen ma de man damaa am ay maamu sëriñ toog jàpp sama ñaar moo tax may putti putti di facci facci ni réseaux sociaux te dara xewut le père de ma grand-mère est un le père de ma grand-mère est un chef coutumier moi je suis la petite fille d'un chef coutumier chef coutumier mooy maanaam nga ne grand jolof fii comme nga ne grand jaraaf sama maam mooy grand jaraafu Congo Congo ba mu daj képp ku mësaana bëgg teraanga da nga ñëw ba ci moom mu jox la lii tax ma wërsëg nga ne yow doo doo petite fille grand jaraaf Congo bi ngay ngay fagaa nga dem si ay bois sacré xoolal demal demal demal bois di demal bois di ciel demal bois di déggoo ma de madame benn rein madame i rein xaw tudde tuma loolu ma tudde de oto bu paan oto bu paanee eh. demal ciel demal bois ciel demal bu waa teer demal bu waa meer demal bu waa xattari meer mënoo ci man yotaa mënoo ci man lëz déggoo ma de sa borom kër moo ñëw wax ma di li nga nekk di def yëpp ci man samay maam woo ma ne ma diwa ngi sa kaw déggoo ma de te ñoom nee na rëkkalunu si xeex bi du bergaan ne leen ngeen génn ci man baa ngeen ñàkk seen doom seen doom bi ngeen woo tout tranquille ñu ne leen nabu nee na génn leen ci nabu yow mosoo nangu sama sëy ak bergaan oto bu paan mosoo nangu sama sëy ak bergaan dangaa opposé wu dangaa def opposition yàlla def autorisation sëy bi am ay doomu ay doomu doomu tata bintu ñëw mooy ñi xale yi ngeen gisoon bergaan ak kii euh, taal ak mareem nga ne nga ngay salu tey say doom say say doom duñ ñëw say doom ne leen yaay dañuy dem si tata fa xew tata na bu daal tata bu daal dafa xew nga mer say doom danoo baax ndurawul ñëpp yow xam nga jur doom du la nuru say doom ñoo la gën fuuf yow dangaa dof pet yow mère bu am cinquante 52 ans looy xeexi xale boo xam ne yaa ko mën jur man j'ai 30 ans magee nga ma 22 ans doo ragal yàlla fi ne boo deewal sa insuffisance rénale bi looy wax yàlla yow yàlla bëgg na la moo tax nga am benn reen di soox dem nga France nga ne dangay wut beneen reen xam nga amoo reen ba tey tubaab bi nee na du la jox reen ndax reen dafa tubaab bi ñoo la gën a soxla rien te bu la ko amoon seen bopp la ko def tubaab dafa hypocrite déggoo ma de fi ngay wër déggoo ma de ngay na nga dem Fran may na reen Fran talunu la fi nii talunu la de ndax ñoom seen bopp dañoo am reen dañoo am problème rénal xam lan ngay def jël sa kurus di jàpp di julli di di astafurlaa lu bari ndax dangaa lor nit ñi yow ni nga tooñ dafa bëri sa àddina du yow yaa liggéey tata Bintu xaw ba xaw koo rey ba xaw koo dofloo ba Bergane sauvé ko looloo tax tey yàlla yónni pour mu sauvé Bergane yow de booy dem yaay dem doo yóbbu Bergane Bergane moom maa ko nii def ko samay angle fas ne nag sëy moom jur moom ay doom yu bari bëri bari bari bari bëri fi mu nii xale yaa ngi nii di programme naan aaraan la def man la ñuy xaar pour génn xale yi ñu ngi ni toog fi ne nii ran lañ def man la ñuy xaar ma ne sifflé pip nuy génn naan aaraan aaraan aaraan génn <laughs> xale yaa ngi fii toog lii du ventre plat de faux plat la parce que xale yi dañoo làqu si biir dañuy xaar seen papa ne piip ñuy aara aara aara ay paate ay moodu ay samba ay Mouhamed ay xar yi ñëpp génn ra fii ay xale rek a fi ne ween meew gii sama doom bi da laa si nàmpal sama weeni yi wadd ma ma ma ma lim jug nii yëpp meew la xale yi laay xaar pour nàmpal leen di leen nàmpal fi di nàmpal seen papa fi di leen nàmpal fii seen papa moom <laughs> meew moom du du si gaaw suur <laughs> ah, yow li dal Mariama Ngouda Ndiaye moo la nar a dal te Mariama Ngouda dafa am chance parce que moom am na chance parce que mu amul incident rénal te xam naa dina dina dof moom problème bopp dina ko am ndax dama koy torturer mentalement mais yow naan torturer mentalement nga naan say garab ree sa ree di métti te li ma ci gën a neex mooy ça fait cinq ans nga am problème mu ne cinq ans doo sëy te man maa gëy créer gamme intima yu intima yi ñemoo ko doo ko mën a ñam c'est dommage ñàkk ñam intiment rek loolu coono la <clears throat> ndax yow nga war sangu ba set naan sa lem naan say téye jël sa vaccin gii roos yoo xam nga yow da ngaa excitant boo jëlee lem gi boo dof dof la ba yónni jënd si sama kii gis nga lii bëggu excitant de naat miel yi boo ko roobee sa fii def si excitant de naat excitant de naat day def day jël beneen reen nga doo amati reen ko de sama intimement jigul la de c'est la première fois intimement jigul nit <clears throat> seen maam kii ma gën si moom <laughs> baax na intimaay c'est la première fois jigul nit yow la yow la jigut yow rek la jigut parce que xale jigéen ñëpp ñu ngi ma woo si man démb li ma liggéey xoolal piil yi daa mujj dindi piil piil téléphone yi ndax intima yi intima yi ñu toj dëkk bi su ne tike lawbe nga ñëw jël si intima tike lawbe sax reconnaître na intima moom ak Papichou ñu ñëw fii nanoon faj dañuy bongo ba fajar fii tike lawbe ngi ñëw ak Papichou balaa ñuy ñëw na ma traité cas Bergane da bëgguma traité cas Bergane ñu siy feeñ tikkee ñu bu ñëw papi suur ñëw intima gi mu ngi tukkal jamono waaye yow euh, pa oto bu paat ñaareel xedu jëkkëram yow doo ñam si intima yi wool Bergane ne ko lan mooy intima Bergane rek xaw ku xamul intima mais Bergane xam ne intima chaque jour ma intima ko fii moom moom moom moom waaye si si si si salle yi choisir intima bu ko neex ne ma jóge choisir naa intima bi ma ne ko intima bi loo choisir dañuy intima yow intima boo indi si léegi ñu intima ko dama nag man la neex nga indi ko mu dem bu ko neex indi ko ñu yow doo intima parce que nga am une reine xam nga médecin lu mu ci une reine bi ak benn reine da ngay zigouye te yaa tooñ yow yaama ma tooñ te xam nga li ma la wax. sa sœur bu arrêté wul li muy def di woote nit ñi di wax naan ay bul tax na sa sœur lan la yooyu bergar naan ko tax muy takk na bu daal yaa yónni sa sœur n'est-ce man mënoon naa nekk ci kër gi ma tudd pour lan ma bintu pour lan ma attaque ba bintu te at bintu nekk aawa yow nga nekk ñaari la moo ci sa yoon yow bintu bu defoon ni nga def est di nga sëy si kër gi yaa ñaax feer yow yow ñu xajal la ngay doo xajalaat bu bintu defoon ni nga def doo sëy déggoo ma de intimat yi doo ko def parce que médecin yi dañ laa interdit sexe yow doo sexe parce que benn ree du sexe fi mu ne xam nga lan la man damay sexe am produit sama jëkkër di sexe ba fajar di périer def comme Ouzin <laughs> lu ma saf te yow boo koy jéem sa ree bi dag fi ne nii rek boo ko defoon sa ree bi nag bii benn ree bi stop jéem a def nii xool lan def nii Kano Sport defal nii rek boo koy def sa ree bi di wàcc boo koy jéem sa bi di pëtt xam nga ree bi danaan patax feebar yàllaa koy teg teguma la ko te ku feebar day moytu tooñ surtout ngay tooñ ko am capable ko am fit mais sa sër naan bergal tax mu tànk na bu daa cagala cagalaa caga bu téye sa jëkkër laa man maay caga këru jëkkër man maay caga kër ndax man duma xam duma taxawaa si mbedd man maay caga kër man maay caga foyer man la si si caga de man maay caga foyer xam nga caga foyer mosoo leen koy dégg man maay caga foyer góor gu ma téye doo dem de déggoo ma de xanaa nu xaptal la nga daw génn ko comme jàppa danga koo xaptal mu daw wayaa gën a yaa xaptal sa jëkkër mu daw noonu sa tët tët joolaay sonal nan ma ñaari wujju joolaa laa mais xoolal ñoom ñëpp même système bi jaleñ nag dañu xam bàyyi leen jaleñ jaleñ du noonu jaleñ xam nga pour lan la pour ku la tooñ la comme saa jaleñ yi fayu noqul la ko mais doom bu la xamul la bokkul la nga naan que dalay dalay kii ah oto bu paan ñaari xarit jëkkëram doo too ko yow man maa ñetteel bi lay faj déggoo ma de ma ne Tata Bintu yow lu la woon lu ne si moom rek si bu paan gee tey sa doom dina la ko faj ba rek gis nga oto bu gi danaa ko sama loxo du ko laal ko nokk ba mu duul te na dem bois sacré ba mu dem bois devant man dama tax sa Casamance de Casamance dañ maa bëgg Casamance dañ maa bëgg Joolaa dañ maa bëgg Socé dañ maa bëgg déggoo ma de doomu jax sa kenn sa yaay nag li ma koy conseil xam nga lan la comme moom tamit daa insisté Rena xam nga sa yaay daa insisté daa yow insisté Rena ndax Bergane moo ma ko wax Bergane lépp la ma wax si kër gi seen secret famille yëpp xam naa ko parce que intimat yi su ma koy jox maa ngi ko bébé intimat yi maa ngi ko bébé dama wax si kaa kër gi dara waaw man kilifa laa duma wax man d'accord suñu intimat secret yi day génn normal lem bi meilleur plaisir bi su ko jafee waaw bébé xam kii lu ma wax moo ko déedéet laaj ma la ko def mu ne daa ko wax rek mu wax ma ma gàdde xam naa ne tôt ou tard naa utiliser information yi sa jëkkër moo la tooñ ndax loo def mu wax ma ko ndax intimat yi fu fu maanaam da ko yóbbu niveau boo xam ne te tàkkali koog sa bopp est-ce du intimat yi daf loo bergaan mi <laughs> intimat yi daf loo sama jànk bi daf loo sama yaay daf loo sama jëkkër mu arrêté naa intimat intimat laay arrêté production am ñëpp noppul ci dootoo ko defati si mën nga dugg. kii ma ne noppil xaaral ma bloqué la parce que man damay régler samay problème personnel seen yoon nekku ci ku ma ne noppil ma bloqué la ah yaa réglé mais xam nga ne di nga ñëw sama cas xam nga ne man tôt ou tard naa la cas sa sœur <clears throat> la sœur de mon <clears throat> la sœur de mon mari là ah, non la sœur de la femme de mon mari a ah, appelé mon mari pour lui dire que la deuxième femme ah Pourquoi mon mari m'a épousée Parce que moi, je suis une pute. Je une traînée, une fille de la rue. Je suis une mauvaise femme. Et l'a dit, hey, arrête. C'est pas de me dire qu'est-ce que je dois faire. Tu viens plus chez moi, tu es un imbécile, toi. Et vous savez c'est qui l'a envoyé C'est la deuxième femme qui l'a envoyé. Elle fait comme si elle ne sait pas. Je dis à mon mari, mais attends, j'ai réfléchi. se fait que la sœur de ta femme t'appelle et ta femme n'est pas au association de malfaiteurs déguisés. Et dit, chérie, attention à ces gens-là. Ils te prennent pour un con, tu n'es pas un con. On m'a dit, c'est pas un con, hein. Il a appelé ses marabouts, j'ai appelé mes marabouts. Et nos marabouts nous ont dit que c'est toi qui les as envoyés. Maintenant, il t'a demandé d'arrêter. <clears throat> il demandé, c'est tranquille, tu n'as pas écouté, non. Prends chaise, assis-toi. Toi, tu as un césar rein, tu as un rein. Il avant de connaître Nabou Dash, j'ai un rein. Si je laisse pas Nabou Dash, un rein là aussi va partir. Et personne ne vit avec zéro rein. Ta vie là, ça dépend de Si tu veux vivre, laisse, ma, laisse mon nom, laisse mes esprits tranquilles. Si tu touches encore à mes esprits, le rein qui te reste là, tu vas oublier rein. Il te reste un rein. Fais attention. Dernier avertissement pour toi. Je ne parle plus de toi. dernier avertissement va bois sacré va bois ciel va bois salé va dans le bois salé va dans le bois sacré va dans le bois xoolal va dans le fer sacré je suis tu vas moi mon grand-père était un marabout un chef coutumier mon grand-père si te dit tu meurs imaginez-vous un marabout congolais ak a soxor congolais marabout ak a soxor da xamoo sa maam fi nga toog sax laa lay fekk mbaj sa ndey yow moom oto bu paan yow sexo mënatoo sexe cinquante trois ans nga am paan nga gaare nga total ñu indi xale bu ndaw bees tàkk zéro kilomètre ak ay produits intimes nga ne doo fi du ma fi sëy yow yaay kan man damaa nëb sa jëkkër dama kaa nëb c'est trop tard mag bëggaan danoo bëggante c'est trop tard noo tas man man man man mënutumaa dem feneen ndax kaa ba nopp man bergal laa moo ma neex man góor gu bandi laa mosu bëgg am naa man délinquant laa bëggoon jëkkëru délinquant bu jàng am naa jëkkëru délinquant ingénieur du ma dem fenn te tabe na gaaw naa dew ma suñu mariage ko sëy ba jeex maag délinquant bi maag bandi délinquant maag bergan délinquant notre amour c'est la résistible irrésistible maag moom comme Roméo et Juliette sa Titanic ba ñooy àndi dee far force <laughs> pour Bergane ak man c'est un amour incompréhensible sénégalais yi dañu reetaan rek ndaxte maa ngi moom dañoo bëggante mais il faut que ñu régler cas ma ma ma fay kii naa ma conseil pour toi marabu yi xam nga ma leen yëgal seen affaire ñàkk fay seen conseil téye leen ko leen ma énervé ah am ay conseil pour toi boo demee chômage nga ne yow bu ku ne chômage doo may conseillé oto bu paan dernier investissement warning one warning two nag bu ñëwee warning three bu ñëwee nag ma yàq sa waaye warning three bu ñëwee moom sa histoire fa nga sa passé lan la bergaan defal defal ko sa njaboot lépp daal publier te xoolal ba ma koy wax yëpp dama kaa enregistré man may bànn yoo xanaa xamoo leen ma léegi ma ñëw ci document yi ma doon wane léegi aujourd'hui ce que j'ai fait en premier <clears throat> Donc pourquoi je parle de mon mari la encore Je n'ai pas, j'ai dit que j'allais arrêter là. Parce que mon mari, lui, il est têtu. Il m'a volé trois motos. J'ai dit, chérie, rends-moi mes trois motos. Il m'a rendu deux motos. Et j'ai des preuves. Alors, ah les photos sont là. Il m'a rendu deux motos seulement. <coughs> Attendez, j'amène les preuves. Vous là, vous de ma gueule. Pensez comment je travaille pour vous. waaw bu mag bi rek nga jaarale ko nii ma branché sama téléphone. voilà je montre les preuves il m'a rendu deux motos mais mu ànd ak avocat am avocat bi heureusement wàcc ma wàcc rek damay mbéj sa xoon nga xam yow nga sàcc samay moto ànd ak ay avocat mais nga yebaate nga moto yi sax ñu ne woon nañ ma ko aar ma xool ko fii yebaate woon naa ko sax yow. jël samay moto jël trois moto sàcc samay trois moto indi ma ñaari moto yi indi fi avocat la indi avocat samay kër pour pour pour lan pour jëlee preuve lan fallait ma ne si tu si tu si tu si tu savais que les avocats là fallait ma xam ne les trois motos un homme doit un gentleman quand tu voles les motos de ta femme la quand tu rends rends tout s'il te plaît ne rends pas à moitié quand tu voles trois quand tu rends please rends trois on t'a pas tu n'as pas volé deux tu as volé trois j'ai montré les photos c'était deux rouges et un une blanche fii am na dara fii am na kii prise toi tu es malade t'es même pas un gentleman tu voles deux tu voles trois et tu rends deux et puis tu avais ton ton ton avocat qui n'a qu'à prendre note quoi man xaw ma foo leen jàngee ah vraiment al ma chargeur téléphone balaa may On, oh, vous êtes allé à l'école où, moi Vraiment, l'école là, vos écoles là. <laughs> C'est pas, c'est les écoles d'où là. Mais vraiment. Vraiment, c'est les écoles, je sais pas, man. Vraiment, comment faut les djanguer. Vraiment. Parce que je ne peux comprendre. Nga sati ñaari moto. Ñetti moto, nga sati ñetti moto. <clears throat> Indi ma ñaar. léegi beneen noo def foo ko yóbbu wala da nga kaa bëgg indiwaat wala yow bëggoo ma ah, comprendre naa da nga bëgg di ñëw di ma xool di dem moo tax gi dem gisoo ma xoolal téye am na téye bu mel nii mi ngi fee. non da je, je fais un thé là pour boire du thé là parce que. Donc ils ont coupé le courant chez moi pour que je ne parle pas. Mais comme Dieu fait bien les choses, j'ai ma 3G, j'ai ma 4G. Et je vais parler. Oublie-moi qui, moi en toute lumière. Non pas fidèle contre jour. Oublie le fait. Il m'a barré, ben m'a tourné. Ils ont coupé la, le courant pour que je ne parle pas. Ils ont coupé le courant chez moi pour que je ne parle pas. Mais ma batterie, elle est pas, elle est déchargée. Son téléphone, les fait. J'ai 6%. Il me lol. Mon arbre, le mèbre, il me connaît. Genre, ma chaise, je me toque. 6% là, mais 6% et je vais faire vite, je vais tout dire. Vous là, vous ne me connaissez pas. donc <clears throat> indi ma baar <clears throat> bi c'est ce qu'il a fait mon mari <clears throat> il a pris il a pris mon passeport il m'a volé mon passeport pour que je ne sorte pas du pays pourquoi il a fait ça tout ça c'est à cause du marché de la Sierra Leone li muy def ni takk gi ma takk yëpp xam pour lan la woon pour 10 millions de dollars yi maanaam moom mu encaissé ko moom kese léegi comme noonu la man woote naa Sierra Leone dama jëma sama iPhone bi moo woon leen preuve yi moi j'ai appelé ce matin en Sierra Leone parce que man maa xam man maa ko yóbbu Sierra woon comme je vous ai dit là c'est moi qui ai amené Bergane en Sierra Leone Bergane mosut a xam raay xaar ma ñëw bandi sax a ma yeneen téléphone yëpp bandi woo man maa yóbbu Bergane Sierra Leone Bergan n'a jamais été en Sierra Leone. Il ne connaît même pas la Sierra Leone. C'est moi je, qui suis l'ami l'ami du président de la Sierra Leone, c'est moi. C'est moi l'ami de la, de, de, de, de l'ami de la, de la c'est moi. Voilà. Soyez relais, attendez. Moi, j'ai tous les preuves. Mais en attendant, là, j'ai bloqué le, le marché. Maintenant, Bergan, instant, le marché, le marché milliard, à mon tout le sens. Parce que y a que marché. 3%. yàq naa nday marché bi yàlla na courant ñëw balaa sama téléphone bi te bu dee li may wax dëgg la yàlla na courant bi tàkkaat waaye ndax c'est pas normal mënuma couper live bi nii xoolal courant bi tàkkaat na oh my god oh quelle femme ay eh, jox ma préférence bi oh my god oh my god quelle femme oh courant ñëw courant ñëw eh, jox ma chargeur bi ngir yàlla mu branché di balaa muy fay li may wax dëgg la moo tax yàlla bëggul bëggul yàlla dafa ànd ak dëgg courant bi ñëwaat na te ma toog sax moo gën a à l'aise fii laay toog mën a wax lépp normal toog si siis bi nii def samay manière yow diril ma lii balaa muy fay jox ma sama tey intimement ma naan ko en attendant les événements Bergane mosul xam siraale woon ay mbokk Bergane toog leen kaa leen toog seize toog seize seize toog kaa indi leen seize xëccal non non xëccal lii lii rallonge dafa gudd waaw non daa mën a sës daa lemu andi andi allongement la branché ko fii fii am na prise ah non ma branché ko branché bi sama téléphone bi mu naa ma low batterie plus charge nii am am am am nii ay mbokk bergaan yi daan fasal na bu daas xale bi jigu la kaa leen toog